mooy ab conseil national de sécurité daal di wax ne militaire nga xam ne waa Mali teg nañ leen loxo dañoo demoon Mali ngir nag mission bu ONU te nag waa ONU ak waa Mali dañoo signé li nga xam ne mooy ay accord waaye nag loolee nga xam ne Alassane Dramane Ouattara daan na koy wax Assimi Koïta mi nga xam ne jamono ji moo jiite Mali gëmu ko benn yoon ci noonee si la jokkoo ak waa Nations Unies waaye nag waa Nations Unies ñoom nag daan nañuy weddi bu baax a baax nga xam ne Alassane Dramane Ouattara daan na koy wax ndax ki nga xam ne mooy Olivier Salgado mi nekk porte-parole bu Nations Unies moom nag nee na militaire yi nga xam ne Mali teg na leen loxo maanaam nag ñëwuñu woon ci mission bu ONU waaye nag lii tax na pëccëxoo jamono ji daat nay amaat conviction totale moo am ndax nag li nga xam ne moom la Alassane Dramane Ouattara wax ak li nga xam ne moom la waa ONU wax boo bokkul ki nga xam ne nag mooy Assimi Goïta moom nag wax na waa Nations Unies lu leer nee na leen Mali am réew la moo xam ne moom moom boppam yéen kaay gi de Le Quotidien wax ci président Macky Sall mi nga xam ne moo fas yéene dem ca diwaanu Saint-Louis ngir amal fay immigration nee ma na ci campagne kaay gi di critique nee na Macky Sall nag wàcce na boppam ndax Macky Sall élection député yoonam nekku ci mënoon naa bàyyi ay jege ñaaleem jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy opposition bi moo gën Macky Sall di wàcce boppam naan damay jéem a xaw ma immigré xaw ma yow ay tournée économique loolee lépp campagne la yéen a kaay gi di Source A ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna mi nga xam ne mooy tête de liste coalition Yewwi Askan Wi sa diwaanu Ziguinchor Guy Marius Sagna nee na askanu Sénégal su yëpp yëpp yëpp na ngeen fexe ba coalition Yewwi Askan Wi daal di am majorité ci assemblée nationale cohabitation am moom Guy Marius Sagna nee na géej gi Macky Sall yàq na géej gi ndax jën yaa ngi ni manqué na ba maara de tali te nag li nga xam ne mooy yàq géej gi mooy accord de pêche yi nga xam ne réewum Sénégal signé na ko ak waa Union européenne ak yeneen réewa Guy mari Sagna ne cohabitation bu amee accord de pêche yëpp la ñuy renégocier yéen a kaay gii di Vox Populi Ousmane Sonko njiitul Pastef nee na élection yi nga xam ne moom moom la ñu dëgmal coalition Yewwi Askan Wi daf koy gagné incha allah ndax nag ñi nga xamante ni ñooy askanu Sénégal ñoo bàyyi Macky Sall ñoo doyal sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk si Macky Sall te nag Macky bu fi jéemee imposé ñetteelu mandat loolee du ñu ko ko may te réew mi kenn du du ko mën a gouverner ti Aminata Touré mi nga xam ne mooy te de liste Benno Bokk Yaakaar moom mi mi ndaat day wax ne réew mi bu leen ko jox waa Yewwi Askan Wi bu ngeen ko joxe ay xale yoo xam ne jëmuñu fenn xamuñu dara ay amateur xale yoo xam ne xam nekkul seen bopp bopp bi foo ak fitna moo nekk seen bopp bi bu ngeen kenn joxee réew mi maanaam ci tuskare ngeen jëm Aminata Touré ne bu fi kenn voté coalition Yewwi Askan Wi voté leen Benno Bokk Yaakaar bu ngeen bañee réew mi dugg ci ay loxo yi ñoo xam ne ay amateur lañu yéen a kaay gii de la sa ñu xëy fekk fa Barthélémy Diaz nee na élection yi jeex na ndax nag ndakaaru combat amu fi combat amu fi ndakaaro moom Barthélémy Diaz doomu Sampol Diaz bi nee na fanweeri fan ak benn ci weeru suleta nee na 19h30 lay génn jubilé moom maire Barthélémy Dias nee na ma ngi ci mbedd yi ndax nag leer na ko ne askanu Ndakaaru maanaam yeewi la ñuy voteel du ñu voteel benn bokk yaakaar Barthélémy Dias ne fàtte na xëju fi élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn lu toll ci cent mille voix la ñu rawee woon ñi nga xam na ñooy waa benn bokk yaakaar doomu Jean Paul Dias bi nee na législative nag dañoo bëgg leen a rawe lu toll ci deux cent mille voix ba tey ci journal bi moom Barthélémy Dias nee na nag Macky Sall mooma maanaam li tax kenn wuru koo voteel mooy bu ñu ko voteelee bu gañee dafay jéem a def ñetteelu mandat te loolee fitna rek lay andi ci réew mi moo tax Macky Sall kenn wuru ko voté la Ousmane Sonko nee na Macky Sall mënuñoo ñàkk jàmmarloo ak mooma ñuy wax naan xaw ma damaa wax ambaloo waaw naan ko waaw résultat yu tukkee ca yi waaw man Ousmane Sonko waaw dina ko nangoo ay journalistes yoo xamante ni fen rek kàcc rek ay journalistes yi nguur gi lañ loolee mosuma ko wax ak ambaloo Macky Sall moo ci bëgg a ndol ndoll ngir sàcc élection yi yéen a gi di Sud Bokk ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ñoom nag nee nañu score soviétique la ñu bëgg maanaam lu ëpp quatre-vingt-quinze pour cent razia total la benn Bokk Yaakaar bëgg amal fi nga xam ne mooy Fouta nee ma Podora yéen kaay gii di Vox Populi Ousmane Sonko nee na Pape du sek bu dee nag état bu Sénégal daf koo rey ba pare nag bëgg koo laq-laqal bëgg koo habillé bëgg a def ay tappale ne leen koo wax te procureur dafa war a wax ci mbir mi ci yéen kaay gii di A moom jiitul Pastef wax na lu na Macky ak ñi nga xam ne ñoom la àndal nee ma ay alliés ay assassins lañu yéen kaay gii de la témoin nee na Macky Sall nag dañoo bëgg a defar image su Macky Sall defal ko ay lobby moo tax lu toll ci ñaari milliards la ñu jël jox ko ab cabinet américain ngir mu soigner ngir mu defar image su Macky Sall defal ko ay lobby relation publique janvier deux mille vingt deux ba janvier deux mille vingt quatre yéen kaay gii di Rewmi Quotidien nee na bac général tey jii la yéen kaay gii di Rewmi Quotidien nee na pétrole bi ak gaz bi deux mille vingt trois jàpp deux mille ci neuf cent milliards dina ci daal di ruuse yéen a kaay gi délibération xëy di ñu xibaar mbir mu garaaw mu doy waar moo xam ne moo xew diwaanu Thiès ci quartier bi ñuy wax Daaru Salaam dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne moo am doom ba pare daal di koy rayee li ko waral moom xale bu jigéen bi li mu wax enquêteurs yi nee na leen man sama xarit bu jigéen bi may àndal suba ngoon guddeeg bëccëg copain moo ma ëmbal loolee moo tax gàcce googu mënu ma ko woyaale loolee moo tax ma rey xale bi. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may revue de presse